asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV yi du mën a ñàkk comme ni ma leen waxee rek di leen ñaanal jàmm di ko saaxu ci yéen tey nag dama toog kenn koo xam ne tamit yaakaar naa ne voix la ci làmb muy Kandji Production yaakaar naa ne ci topp làmbam ba xëy nekk promoteur boo xam ne ni tey kenn dootu ko laajte ci làmb waaye tamit sax si showbiz ndax gis nañ ko ci làmb ji gis ko grand théâtre gis ko ci bâtiment yi tey nag sànc laa ko fekk <laughs> Kandji moom comme li leen di wax ci promoteur yi rek làq nañu leneen parce que ku ci ne am na métier boo rek di ko doxal Kandji production maa ngi lay bëggee di lay ziar. jërëjëf Babacar gannaaw baatu onze billahi mina seytaani rajim dañuy sant yàlla bu baax jullit sang-sang yi Seydina Mohamed gërëm suñu ñaari wayjur di ñaan suñu wayjur bu góor yàlla na ko suñu boroom yërëm xare ko àjjana ak képp ku mu fa fekk ak ko fay fekk di ñaan suñu wayjur bu jigéen mu yàgg fi lool ak bépp wayjur di nuyu kilifa diine yi di ko teg ci loxo xalifatullah Serigne Mountakha Mbacké El Basirou mu tegal ñu ko ci loxoob kilifa diine yi fi nekk yëpp di nuyu kilifa aada yi ñu fi nekkal di jël loxo nuyoo bi di ko teg ci loxo son excellence monsieur le président Macky Sall di nuyu opposition beeg ñëpp ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci réew mi te ngank ko di nuyu njaboot ak làmb ñi ñuy seetaan à travers Equivox TV ah di ko teg sa loxo nga taxal ñu ko ñëpp waaye nag damay jël nuyoo bi teg ko ci loxo monsieur le ministre Matar Ba mu tegal ma ko ci loxo Bira Sène mu séddaleel ma ko képp ku bokk ci làmb di nuyu nag promoteur yëpp bàyyiwuma kenn. di sant di gërëm di rafetlu tamit vraiment initiative bi muy ñëw jël si ma ñëw dalal ma ñu waxtaanee ci li nga xam ne ñoo ko bokk muy làmb waaw. am na solo kookooy Kandji Production mais Kandji dama bëggoon nga tënkal ma ci benn une sax lu lu maanaam kan mooy Kandji ak Kandji lu ko dugal si làmb. waaw xam nga Kandji mi ngi benn xale boo xamante ne bii ay origine am jolof jolof lañ. jolof jolof man maa ngi dëkk bu dëkk bu ñuy wax Ndaraame jolof maa ngi dangay ñëw ba sagata nga jaad sa ndeyjoor. Sine ma wër maa nga nag ami mbokk lonkaan am ko fépp sama yaay nag waa Kaolack la waaw sama sama papa mooy waa Jolof ma dëkk Daaru Rahman juddoo Ndakaaru dix rival mi angal escarfé yaroo Ndakaaru màggee Ndakaaru tamit nag wax dëgg yàlla di koo xamante ne bii kër gi ma dëkkoon li indi virusu ci kër gi ma dëkkoon la jóge ndax maa ngi fa dëkkoon ak ku ñuy wax Cheikh Ndiaye bu Faas Serigne Ndiaye ñoom Saxeer Ndiaye ñoom Abba Ndiaye bu ma daan jàngi nag daanaa romb benn boutique boo xamante ne bi ku ñuy wax Moussa Mbeng moo ko yore Moussa Mbeng ak Pape Diagne ñoo njëkk a tëgg combat Yékini ak ku ñuy wax Dame Sylla donc ñooñu ñoo ma piqûre virus bi jamono boobu Serigne Ndiaye mi ngi tëgg benn mbapat bu ñuy wax air liquide maa ngi bokkoon ci xale yi nga xamante ni bii ñoo daan rangale siège bu ñu rangalee siège nag ba làmb ji jot noonu lañ ñuy bàyyee ñu toog ci suuf nii nga may séenee nag bëri rek laa mënoon tuutee ma tee bëri xam nga nu ñu ma tuddee woon bi may nekk foofu le champion lañ ma tuddee woon sama benn xarit bu ñuy wax Laay Bamba sama grand la ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm gaañu na moo ma ko tuddee woon loolu moo indi sama virus ci làmb man bu njëkk li ma impressionné a musculaire moo ma daan jaaxal foofu la ma virus bi duggee nag ba bi may nekk xale sama papa dafa ma daan wax ne ma soo jooyee même bu ñu la tëggalee face bu sax da ngay hmm. waaw man làmb dafa tuuti ma ne la dama ko am ci deret waaw mais nag wax dëgg samay mbokk aw ma kuy bëre aw ma ku daan tëgg làmb aw ma amoon naa nag ay sama mag boo xam ne Abdou Kanji lañ koy wax moom moo daa ànd ak ñoom Xaadim Ndiaye moom bëggoon na làmb ba ñun daanaka mën naa ne la bi ñu gën a nekk gone sax dañu ko daan tere mais dem na ba xam ne ñii loolu lañ bëgg mu mujj bàyyi ñu ñuy ñuy seetaan si virus bi foofu la ma duggee nag làmb ma bëgg ko lool daan fa seetaan ñoom dem si yàlla Baye Daawur ñoom Xaadim Ndiaye boo yaraax Mbacke liiru jaan Tafa Gueye numéro 2 Mbaba 37 ma ko daan seetaan Lirou Diane liiru jaan mu mag ma mais pas liiru jaan mii de liiru jaan <laughs> non jaan maa ngi koy nuyu bu baax sama grand moom tamit la monument de Guédiawaye di ko ziar non déet non c'est le monument de Guédiawaye di ko ziare bu baax seetaan naa mbapat 37 seetaan naa mbapatu Djib Diouf seetaan naa mbapatu Zallo Amath Sène mii bi muy bëreeg Zallo seetaan naa ko mbapat Modou mii maa ngi ko seetaanee 37 fa laa commencé seetaan mbapat mu yor 10 bi donc lamb Modou Lo mii 10 litres 37 laa toog seetaan ko mbapat mu di ko te Modou balaa nga balaa mu laa gën a jaaxal nga yenu ba ci kaw. maa la wax lii. boobu gaa yi dañu ko daan yenu. mas naa ko seetaan ak menn ponkal moo xamante ne bii keroog man damaa jàppoon ne muduloo dafa am lu mu yore luy kole ci yaramu waaj ndax léeg-léeg waaj day yenu ba ci kaw bu sànnee mu taxawaat. moo tax bokk na ci ndaanaan yi nga xamante ne bii di nuyu mbëri yëpp nag sama xarit yi ñoom Gris Bordeaux Boy Niang Balla Gaye ténor yi nga xam ne ñoo séq ñu joxal ma ko Petit Espoir bi ci suuf macha foofu la ma affaire bi duggee nag mais nag am na ci ñoo xamante ne bii suñ ma xoolee may tëgg làmb du leen bett ci ñi ma xamoon démb suñ ma xoolee ma nekk ci làmb dañuy xam ne mbëgg suukar la saako suukar la dugg rek daa ñibbi ma ngoog maa xam bëgg suukar cay léegi nga dugg si ci làmb nag comme di ko dund di ko dund ba xëy xëy nekk promoteur promoteur bi tamit lu la inspiré ba nga def ko. ak foo ko njëkk a defee. promoteur gi fraction de seconde la ma dikkee. ndax dama toog suñu place man Abdou ak Tafa Cheikh Ndiaye bu Faas jóge marché wàcc jaar fa ñuy waxtaan di waxtaan mu gis ni ma mel ci làmb mu ne ma yow lu tax mënoo tëgg làmb Abdou ne ma solution la Tafa ne ma ayca fi ñu taxaw matul 30 minutes ñu ne léegi ban combat lañ xalaat Cheikh Ndiaye nañ jël Bruce Lee wut kuñ ko tëggal Tafa ne nañ seeti Pape Sène comme ñooñu gënoon a jege diggante bi li ma lay wax matul 24 heures ñu woo Ousa Sow Ousa Sow ne waaw woo Pape Sène wax ak moom ba d'accord di nuyu nag ndeysaan ndem si yàlla sa ko ñaan yàlla yërëm ko xare ko àjjana Jacques Diène dañoo waxaale ak Pape Sène ba jiwag moom ci 750 000 Pape Sène nañu woo leen sama ménage jox ko bi ñu woowee Jacques Diène Jacques Diène dane moom du fonctionner noonu indiwaat ñu ci voie hiérarchie normal bi ñu waxaale ba mujj 1 million lañ fay Pape Sène c'était un très bon ménageur nga xamante ne bëri na ténor yoo xamante ne bi cursus bi ñu jaar ba egsi ci loxoom la ko yàlla jaarale foofu la ñu commencé ma tëgg làmb brut li Pape Sène 4 jours avant tabaski ma ma perte 16 décembre 2006 laa ci laa ci commencé maanaam fin 2005 début 2006 laa commencé ci làmb perte ci 4 millions. ca ndax ñeenti fana desoon ci tabaski. ba pare voie bi ma jaar waruma fi woon a jaar munu ko woon amu woon expérience bi xam nga te tout début est difficile. mais booba nag loola ci li ma gën a réconforté man jikko man Gris Bordeaux ci palmarèsam ci làmb mooy kaañ ci làmb. Hmm. man sama ñaari premier combat dañ maa daan. bi ci topp ma mat si niin quatrième bi ma commencé am ay victoire. man dama njëkk a perte. tëggaat perte beneen bi mu tanee mu digg doomu. quatrième bi nag ci la commencé gis yoon wi waaw. mu mel ni kon loo fa xaar du la fa fekk. noo xam nga làmb sax ci raw dama ne la bu ñu àndee dem ca boîte ba DJ bi di ko def mm. ngay ngaaka waaye bu ngeen àndee ca dëkk ba nga jox ko baa ko to rigul muy ngaaka lépp looy door a dugg rek seer nga cee doon waaw mais nag c'est en forgeant c'est en forgeant qu'on deviendra forgeron waaw. bi ñuy jéem di dox di dox di dox yàlla def na daal dem nañ ñu bokk ci ba ci ndimbalal yàlla ci wax dëgg yàlla di tëgg nag suñu borom diñ ci defal jàmm. Euh, combat yi nga gën a të yi nga tëgg ban moo ci gën seer. Gris 2 ak Auguste. no saa Thiès booy ngaay moo ci ëppoon budget ndax booba wax dëgg yàlla am tolloon nañ foo xamante ne bi saa Thiès da doon génn booy ngaay di door a jóge ci mboot moom mu mbootoon. su ma juumut waa mbër moomu sangu njaan mboot ma mbootum sangu njaan ma ba mbékaay mbay yuuxoo suñu père boo xam ne bi ma leen fayee li ma leen fayee ñoom ñaar pare ñu bari ci ñi ma jege woon te xam làmb dañ ma doon wax yaa ngi yàq làmb ji ci gone yi muy combat boo xamante ni bi nag vraiment bokk na ci combat yi gën a réussir wala yi gën a lancé kàjji combat boobu ci la bokk ndax jour boobu indi naa sax ba indi fas ay majorette ak ay fas ci biir stade bi muy combat boo xam ne ki ma ko tuddee woon muy mu Tall ñoo ngi koy nuyu de passage bokk na ci ñi gën a réussir loo combat bi ndax moom ci moom dafa bëggoon événement bi donc moom fas yooyu ak majorité yi ndeysaan moom moo jëloon El a Doudou Ndiaye Koumborog mu ñëw indi ko foofu mu doon combat boo xam ne ça a été une réussite totale mhm. am na solo mais léegi dañu demoon gis kanji boo xam ne ñëpp newoon la seen promoteur kanji kanji kanji coow li bari lool après ñu dem ba benn moment gis mel ne affaire bi dafa xaw di beese di beese kanji dafa yoratuloon xaalis dafa amatuloon ñu ko doon jàppale wala kanji làmb da koo neexatul wala. noo làmb mënu ma na ndax comme ni ma ko waxee léegi làmb dafa bokk ci man. ba fii may wax ak yow nii làmb dafa nekk ci loo xam ne dama ko bëgg mais xam nga làmb su ma ko évaluer defagul naa ci fukki at ak juróom bay laal fukki at ak juróom benn te làmb comme ni ko nit ñi di waxee làmb du métier man dama yor beneen métier boo xamante ne bii du làmb làmb troisième activité la ci man entrepreneuriat bi mooy première commerce bi mooy deuxième làmb door a ñëw comme troisième rôle donc su ma ci nekkee di ci nekk di ci nekk di ci nekk ñaari mbir tax ma dégg ci tànk bi ci jiitu mooy dama ci daan dugal di ci jot la ma ci daan jot ba ciy joti wecceet yoo xam ne lu ne xaj na ci ngay dem ba ci biir te li ngay dugal mujj na waxuma la wecceet yi mais pour li nga ci dugaloon nga jot ci rek day xaw a compliqué léegi nag loolaa waral ñu def benn saan baay xool beneen bi ci des mooy da ngay dem ba temps bi nga xamante ne bii moom ngay jël di ko def ci làmb soo analyser consacré ko ci sa liggéey mu jural la loo xam ne làmb du la ko jural te làmb fi ne nii mënatuma cee def lu ma ci deful wala mënuma cee def loo xam ne damay ñëw fekk naa samay mag wala samay papa yi fi nekk defuñu ko làmb ku fi bëgg a def luñ fi deful da ngay tëgg làmb kaw asamaan si boo deful loolu loo fi def nit ñi defoon nañ ko ba pare léegi ni ko laay wàcc na ci parent Pala Mbaye joow na kaañ ji toñ ñay nen Gaston yor na kon lu fi waay Petit Mbaye Petit Mbaye def na fi lu ne tëgg na làmb bay posé présidentiel kon lu fi def rek defi léegi nag bi ñu demee ba xam ne ndax nit il faut muy jàngat jàngat mooy damay dox di dox ci yoon wi ba mu yàgg ma ne waa yoon wi est-ce que dina ma yóbbu fi ma bëgg a dem wala yoon wi lu tax ma jot ci wala yoon wi fan laa toll ci niveau bi ñett yooyu laa boole jàngat ko def li tubaab di wax reculer pour mieux sauter mun naa dellusiwaat ci làmb tëggaat hmm. waaye nag day fekk contexte bi tax ma arrêroon ma gis leneen lu changé waaw. am na solo mu mel ni léegi fi may dugg ak yow ba tey damay xuus continuer parce que ku ne xam na ne at yi ñu génne làmb ji gars yi dañuy dafa am problème mooy sponsoring ñuy avancé di dem ba far corona ñëw nag kor làmb ja comme ni ko mbër yi waxee mu mel ni ba leen koree ba tey bàyyiwu leen li. ci corona bi mars lañ gëj a bari tey ñu ngi xalaat ay huis clos ay pay per view coowal làmb li ngay dégg depuis boobu ba tey ak yi ci am. waa xam nga loolu lépp jàngat la ndax boo gisee tubaab di def li ñuy wax débrief. waaw débriefing boo defee boo defee dara ba pare lañ koy def ça veut boo nekkee ci mbir di def di def di def ba obstacle am ci mbir mi muy comme le corona bi nga xam ne man je pense que ni le corona est venu pour rééduquer le monde waaw te nañu xalaataat xam ne bu corona jeexee lay gën a jafe ndax lu bëri da koo nërmeel te fekk luy dox nga ànd ak moom yomb na waaye fekk lu daanu nga yëkkati ko looloo jafe te corona dafa bëri loo xamante ne bi ay secteur daf leen daane de telle sorte que barki dem maa ngi waxtaan ak sama benn xarit mu ne ma maa ngi dugg ci 6 mois yoo xamante ne bi 14 mois yoo xamante ne benn yoon laa dem Chine ma ne ko te ci 14 mois yi ñaata yoon nga daan dem mu ne ma 14 fois laa dem ndax mois bu ne naa dem benn yoon donc kooku booy xool lam ko impacté kenn xamul nu mu toll kooku nag bu buñ ca jógee la defaat ngir liggéeyam demaat loolu bopp koy def làmb dafa toll foo xamante ne bii coow yi nga ci dégg yëpp ak détails yi lu mën a ñàkk la waaye nag li koy undu intérêt personnel da ci ëpp waaw. coow li ngay gis pour yow coow bu dee coow am na intérêt personnel la. non xam nga coow soo gisee rek dafa am lu ko waral nañ wee coow am na ku gën le su ma la ñëwee ne la ba ban téléphone nga yor nga ne ma bii may la kon kaañ weccoo kon am na lu ma neexutut sama bos ba tax ma bëgg a jël sa bos waaye dama ne bu ñu ko tegee ci yoon ñun ñëpp fi ne benn objectif kese lañ war a am mooy làmb ñëwaat làmb nag dafa am nu muy ñëwaatee ci biir lii dama léeg nga dégg ko gi jël exemple football mais football ak làmb du benn xam nga lu tax du benn ci doxin yi football bi corona ñëwee ñoom dañu jël seen recul taxaw def li ñuy wax projection ça veut dire ñu ne ñoom fii ak trois mois ñun dañoo bëgg a foot football léegi ci trois yooyu ñu am temps dañ ci xool ñoom nan la ñu war a footballé nan fan la ñuy jaar fan lañ dut jaar ban ressource war a ñëw lan moo ñuy dimbale ak mesure d'accompagnement bu football war àndal ba tax bu ko jëlaatee ci huis clos mu dem làmb mën na nekk làmb luy tee mënta nekk huis clos. maanaam su ma la déggee kon la waa football ba ba waa football di xalaat di réfléchir rek waa basket ba waa làmb moom xalaatuñu dañoo xëy xëy rek coow. non ñun ba fii may waxee yow xalaatuñu dara. yéen ñu dégg fi seen daje ministre beeg CNC yow jàppal nga ne xalaatu ngeen. waa xam nga daje bi. li ko undu fekkewu ma ko waaye ba ma paree la ma ca dégg. ministre bi xool na ne mbër yi am na ñu jël avance te yërëm na leen ndax feeg yaa ngi yenn bagage ab jàmbur te ko sa mbag mooy lu la wàccut feeg yóbboo ko fa nga ko war a yóbbu. promoteurs yi génnee nañ seen xaalis muy loo xam ne vidde na ci seen poste te du feesaat feeg delloowaatuñ xaalis boobu seen bopp même bu fekkee ñi ngi liggéey di am milliard xaalis boobu ñëwee da leen a dimbale. mu woo leen ne leen kaay leen ñu xool nan lañ mën a def ba tëgg làmb mais nag huis clos kese moo mën a am promoteur bu ci nekkoon te amoon combat wala nga taxawal ay combat bindal sa devis wane ne man combat bi nga bëgg a tëgg temps la bu ko defee ñoom dinañ def ay prévision xool nan lañ mën a accompagner promoteurs yi ngir décharge yooyu nekk seen kaw ñu décharger ko. dafa am loo xamante ne bi gis nga charité bien ordonnée tubaab nee na il commence par soi-même dafa am loolu suñ ko bëggee ñun ci suñu biir ñooy wane un très bon exemple xoolal xaalis bi bi nga ko déggee ak léegi ñaata association nga fi jug yu taxaw ku nekk naan man ci laa bokk dañ maa war a jox. conférence de presse mbër yi de ñu woote yi de bëri na moom xaw ma nag waa làmb dañoo bennul xaw ma. waaw xam nga mbër yi dama leen di saluer de passage. di leen féliciter. Balla Gaye 2. Gris Bordeaux. booy Niang Modou Lo. Eumeu Sène ñoom ñi nga xamante ni tafaatin ñoom ñi nga xam ne ñooy ténor yi nga xam ne ñoom laa gis ñu toogoon ndax tàgg day am jàppal diw donte baa ma ñoon donte mbooloo ko def mais dañoo am ñun jiital ñoo ñu jiital nag damay magnifier geste yooyu ñu def ndax xam nga lu tax ils ont frappé un gros coup keroog ku la newoon Modou Lo ak Eumeu Sène ak Gris Bordeaux ak Balla Gaye mën nañoo toog ci menn ndaje di kaf di foodree di défendre seen intérêt mais Tafatine mi ngi jël avance Boy Niang Boy Niang jël avance Tafatine te pourtant ñi ngi ci benn table jël adversité bi teg na lee di jéem a xool nag lan moo leen di jëmale kanam loola day loo xamante ni bi c'est valable pour tous les acteurs de la lutte ndax làmb léeg nga dégg ci pàcc pàcc yoo xamante ne bi diviser la rek division la rek te division bi daf ñuy néewal doole doole bale xam nga ko. doole bale wax ma ko. takku gi bokk benn say mais bale booy génn benn bi laal mu koy damm waaye fi ne boo bëggee fekk noonu mu rawasoo nga tak nga damm ko boo moytuwul yaa ko fay mujj bàyyi dem buñ ne entraîneur ne président écurie ne mbër. waaye ñetti yooyu ma foog ne benn la président bi ne moo yore écurie bi moo ko waa fi bi ko waa mbër mi kon ñooñu bu fekkee mënuñoo wax lu ñuy dégg ñun bu fekkee ñun mënuñoo wax lu ñuy dégg est-ce que ñun ñun waa làmboo bu fekkee mënunoo wax lu ñuy dégg maanaam mënunoo àndandoo wax dara ñëpp àndandoo ci est-ce que mën nañoo wooy keneen di ko indi pour mu defal nu dara dangay am sa ñaari soxna mais da lay wóor ne entente bi nga am ak aaw bi amoo ko ñaareel bi te du tee ñoom ñëpp say soxna lañ mais division bi ñu bëgg a wootee kenn ku nekk jëm fii kenn ku nekk di xiiru yooyu amul benn njariñ mbër yi nag loola ñu def man de kontaan naa ci ndax xam naa ne bu njariñ ñëwee dina di làmb lépp la yóbbaale waaye nag kenn ku ci nekk na xam fi nga xamante ni bii fa nga war a taxaw nga taxaw fa cër bi sa morom joxe nga jox ko ko affaire bi du mbër muy taxaw di xëccu ne man maay lii wala promoteur kanji di taxaw di xëccu ne man may nangam affaire bi nañ xam ne làmb la ku ci génn doonatoo liñ lay woowee parce que ñun gone yi ñoo war a wane exemple boobu ndax man làmb bi ma ciy dugg si entente bi ma fekkoon sax fekkuma ko fi léegi te bi ma fi nekkoon boobaa gënoon a garaaw léelu booba sete à l'époque de Petit Mbaye Gaston Mbengue Ligue Nicolas Serigne Modou Niane Ndeye Ndiaye a Aziz Ndiaye kenn ku ci nekk di ay ponkali promoteur ak ay Bawol production Jaspro Ndion Wanaar ñoom ñoo ñëpp kenn ku ci nekk di ponkali promoteur di tëgg say événement at ne téewul ñëpp nekk ci jàmm di kaf di foojaree bu intérêt taxawee nag kenn ku ci nekk nag bu la neexee défendre say intérêt mais sa intérêt yow sama intérêt man mooy làmb mais sama intérêt kañ ji du fekk ne dañ lay jox dara rek nga ngoor ko dem loolu day jeex après nooy ñëwaatee loolooy wax ji te loolu il faut ñu xool ko. am na solo macha allah bi am na solo trop kañ yi ku mel ni Gaston Mbengue dama ko jëli mu magnifié par rapport ak sa taxawaay ci làmb Gaston Mbengue moomu tey retouram ci làmb parce que dama seet ku mel ni El Hadj Papa Dieng mu ñëwaatam day dolli làmb de plus. non xam nga. am ndaa toj ndaa tuxut a bëri ndaa làmb promoteur bu ñëw yokku si non loolu c'est quelque chose mais nag rawatina Gaston parce que Gaston quoi qu'on puisse dire c'est l'icône de la lutte ku ne Gaston Mbengue ne làmb man dama lay dama lay dama lay nettali lu lu yàgg kër gi ma juddoo rival mi xam naa sax moom fàtte na ko Gaston kër gi ma juddoo rival mi moog boutique am bu doon jaay prêt à porter ñoo jàkkaarloo. amoon na benn frère boo xamante ne bii saa yu Gaston Massane di tëgg làmb mooy jël sama loxo jël sama loxo mag bu ñuy wax Tafa ak Serigne Fall yóbbu ñu làmb Gaston te duñ fay dara ñu demoon ba lu ci bëri bu Massane ñëw foofu lañ ko daan gis mu doon fierté ci ñun ba tey ñu mën a bokk ak moom millier li mu wax nag ci ñun dégg nañ ko mais loolu encouragement la ak ñaax la gën ñu yokk jom mais Gaston day nit koo xam ne làmb am ko moo gën làmb ñàkk ko ndax lu mën a xew dara la ci dëkk bi ci liggéey na ci réew mi loo xamante ni bi tey lu jafe làmb yàlla dimbalee na ko mën nañ koo wutal loolu nag yàlla moo koy dogal ci doomu aadama yàlla day dogal tey géej ñay jëli di ñëw ca di indi ñoon duñ lekk jën yi waaye kay lekk day toog këram joxe dépassam jabaram dem jëli ñëw indi euh, Kandji am na solo li nga wax mais léegi fi may jeexale ak yow ci làmb tey bu fekkee état bi ñu ngi wax naan war na joxe lii war na joxe laa bu dee état dafa jox tey waa làmb acteuru làmb tey xaalis boobu bu ñëwee yéen ban taxawaay ngeen ci war a amee ba ëllëg état xam ne yéen ñii kat ñu jaroon a jox ngeen. taxawaay bi ci jiitu mooy xam ne du xaalis bu ñuy jox nit nga def ko sa poste di yaaleeg moom xaalis bi moom buy ñëw làmb ko indi kon ci làmb ji lay duggaat mooy benn. deuxièmement bi mooy Babacar il faut qu'on prépare psychologiquement les acteurs muy mbër mi yaa ngi dégg ñuy wax ne est-ce que mbër yi duñ def test corona ñu ngi koy wax loolu nag il faut qu'on se en conséquence. muy entraîneur yi muy président école de lutte di travailler mbër mi ndax travail daa am ñaar physique ak psychologique psychologiquement da ngay préparer mbër mi war a dem bëre ji nga xamal Gris Bordeaux ne ko yow à trois jours de ton combat war ngaa defi test coronavirus. donc ci ñi ngay entraîner ci li ngay leneen ci li ngay leneen loolu war nga cee préparer wu ndax imaginel mbër mi tey ñu bañ koo préparer muy dem di dem di dem ba def test ñu ne kii daa corona bu doon jour la dañuy remplacer rek dugal keneen. mais loolu amul ci làmb donc il faut ñu nit ñu jël suñu ay mesures beneen bi ci des mooy lii nga dégg ñu naan huis clos bi bu demee fii bu demee fële day am yoo xamante ni nag xalaat la ci ginnaaw sox bu tàkk la rek nekkoon doo tiire mbër mi munoo fexe fexe fexe ba ay nit duñ daje buntu këram huis clos bi nag ca làmb ja lay amee mën nañoo indi nag police boo xamante ni bi dañ koy samp ñaata mbër nga gis ñuy bëree teg ay barrière seen angal kuñ xamut wala ku jëbakut doo léegi nag loola buñ ko defee mënuñu koo def ci loo xam ne état lum mun amul su ci état décidé mbër muy bëre que ça soit muy Ama Baldé muy Modou Lô parce que la force reste la loi te personne au-dessus de la loi mën nañoo baare koñu Modou Lô ba kenn du fa jege mbër mi gi depart taal otom dem gémi ñaata mbër fi daan ñu dugal leen ci oto gémi escorté leen ñu dem ba ca làmb ja làmb ja kenn du fa ne ñu bëri ko ci normal indiwaat ci kër gi mbër mi nekk fa nag la ca des nag loola yow la sa santé yaa jël say précaution jël say matukaay te xam ne ku ci nekk dafa am foo yem ñun ñii di promoteur yi ñu xam ne la woon wu nekku na yenu say nit indi ñëw toog fii dugg fii génn fii loolu mënatut a am nga restreindre sa ay staff xool juróomi nit fu fukk daan ne il faut nga jéem a xool juróomi nag parce que feebar bee ko laaj te wax naa la ne la làmb du tijji fii ak yi bokkuñ ci ñi nga xam ne dañ leen cee war a boole. waaw ndax état bi dama lay wax leen li priorité mooy wérgu yaramu doomu aadama te wérgu yaramu doomu adama yi médecin yee ko mën a saytu ànd nag ak ñun ñi nga xam ne ñun la ñuy dimbale ñu dimbale suñu bopp promoteur bu ci nekk nag xool ni ngay ñëwee xool ni ngay defee yow mi journaliste nga xam ne kat man dañ ma daan may ma indi caméra preneur de son monteur ak man muy kat bii kat ñaar nit dong lañ ma may il faut que ñu préparer mbër yi ñu xam ni ñuy ñëwee promoteur bi xam ni muy tëggee te Babacar làmb bu ñu jugee ci lii dafa war a am li ñuy wax ay ay ay euh, euh, nan ay atelier ñuy prépare promoteur bi psychologiquement promoteur bi ci li mu nekk lan la muy yow da nga ne promoteur bi mais lii nan laa ci mën a exercer sama ay fonctions ba ma bokk parmi les meilleurs promoteurs nan la mbër mi mën a di comporté woo digganteem ak entraîneur am digganteem ak manager am parce que il faut qu'on arrive a kenn ku ci nekk ñu définir rôle bi nga yor yow nga xam rôle bi ma yor bu ko defee li ma war ci yow dama koy def li la war ci man nga di ko def benn problème du am. am na solo. kookoy Kandji Kandji production.